mbërgale yaay mbërgale yaay mbërgale yaay su guddee fooy fanaan mbërgale yaay mbërgale yaay mbërgale yaay yo ma la mbëru faas may la tànk doomu daan sama gox dañ ma sax j'attaque je kon je yo def lu leer du ma pilu faas mën leen fuuf dëkk def lu naas dama ni cëpp juutal seeni tendance def ni Pape Diouf damay kas territoire samay terrain de chasse waxal sa rapport mu fecc bolokaas ci diggu gem bi damay bàkku di njuub samp sama ndënd tëkku ñu asalaamaaleykum mbokk internet yi di leen nuyu bu baax di leen ziar di leen bëggee ñuy suivre sur Kewel Info en route vers le 2 octobre ah, mu nekk na Ndiaye production mu nekk combat boo xam te ni jeex jàmm ak ki xam te ne moom mooy Ibou Afia ak ki nga xam te ne moom mooy Boy Diop numéro 2 ak Siteu bu anti gannaaw nag bañ demee jëli ki xam te ne moom mooy sita bu anti tey nag ñu ngi fii si benn baraak ñëw fas yéene waxtaan ak ki xam te ne moom mooy adversaire am na lu mu yóbbante adversaire bi dañ koy bàyyi mu nuyoo boo maa ngi Fatma maa ngi lay siyaar xam nga di nuyu waa Yëmbal waa benn baraak waa Kër Massar di nuyu sama grand Zoumoulé xam nga di nuyu Sathiès sama lonko di nuyu ñëpp borom saal bi njaago gaayab maa ngi leen nuyu leen sant bu baax. boo jóg nga def ñaata combat. man 5 combats 5 victoire laa def. armée de la mujjee armée de la mujjee daan arène nationale le 24 juillet bi passé. cinq combats cinq victoires. Ah, cinq combats laa def. armée laa mujjee bëreel waaw mu laa mujjee daan stade stade euh, arène nationale. nga dugaat fi nga xamante ne moom mooy Bawol. waaw Bawol laa dugaat am fa cité bu anti cité bu anti li ma ko doon wax rek li ma waxoon armée de bi passé daanaka signature bi yow yaa defoon nee woon naa cité bu nee woon naa armée de moo ñu boole. waxoon naa la ko mais Siteu bu anti man xaas moo a boole ak moom mais du du palmarès su bëri du ci bëre adversaire yi ma bëre bëréwul ñoom ñi ma daan daanu leen moom ay xale la moom ay xale la doon bëre leen daan ay xale mi ngi doog am adversaire potentiel boo xamante ne nii ëppul doole ëppul mbooloo ëppul ngemb dàqul bëre mi ngi mi ngi koy doog am adversaire boobu Siteu bu anti kay dégg na li ma koy wax adversaire yi mu daan am ak bii bokkul mi ngi doog am adversaire si àddinaam lambu ba mu dalee bëre ba ba ba jone yàlla yi tey mi ngi doog am adversaire Siteu bu ent bu dee mooy dëgg. voilà mi ngi doog am adversaire musul am adversaire. mbër moom ñu jëli ko mu mun a yow yaa ko xamul combat mbër ngi waxaat loolu. waaw yow Siteu bu anti attaquant la daan kooku zër la boo premier combat am ñu suux la jox ko nu ko neexee la ko war daane si yoon. kim daan combat mi paase kooku di attaquant point du zër la moo ko xam ko bu baax. zër la de zër la daan daanul mbër mi ngi doog am adversaire boo xamante ni tey jii ëpp ko doole dàq koo bëre gënu koo ñeme ëpp ko ngem mu ngi doog am. gis nga Siteu bu ànd gis nga ko. waaw Siteu bu ànd dama koo xam gisuma ko dama koo xam ndax si làmb lay yëngu ma yëngu si làmb su ma ko xamul rek kon a a a ma moo ci wax de ndax mu ngi a bëre adversaire a am ku ko yombalal làmb ji wala nga ne ko yaa mun nga ne ko yaa bu doole kooku noonam la ku ko wax yaa la. moom yombal na yombal na combat bi de. waaw ah, moo tax moo tax moo tax bu ñu eggee bu ñu eggee bu ñu eggee la deux incha allahu rabbi dina xam ne fii lu yomb amu yomb yomb sax léegi balaa moo sax lu ne nga say daj sax xam nga yomb original. moom nee na euh, moo la doole nee li muy bëre sax yow bërew nee na da nga koo umpale mais nee na xam na la bu baax. làmb la ma xamee nii rek comme ni moo ko xamee nii xam xamuma bu baax noonu dong la ma xamee làmb nii dong la ma xamee man tamit ci làmb dong la xam moom mënu maa xam bu baax tànk tànk la deux passé wul. barki borom Tuubaa bu la deux passé lay doog comprendre kan mooy Diop 2 si àddinaam mën na ko koo xam tànk la deux passé wul allah. Ah, moom daal en tout cas nee na yow da ngaa xaw wax moo tax da lay bàyyee wax ci bugguma ci woon àgg sax. non man su waxee damaa bëri wax dafa wax lu ko moom ah, di wax man daal nekk na adversaire boo xamante wax lu tuuti lu bëri laa xam ku xam amateur lamb yi xam nañ ko si man rek moo ko wax sekk dafa maa xamul nag moo tax mu ne damaa bëri wax mais loolu dara na yow sañoo euh, kii ak moom xeex ak moom nee na def jaaga nga xeex ak moom ba naaw nee loolu boo ko defee di nga ci am mbetteel. waaw moom man adversaire suñu génération adversaire bi ci dàq xeex maa bëreeg moom armée 2 yéen xam ngeen li may wax. moo ci gën a saf moo ci dàq xeex ba ma ba ma ko jàppee gis ngeen nu ngeen def samay samay morom man rek maa si xeex 11 minutes amul taxaw 11 minutes mag building bu taay si nga 11 minutes lan xeex amul taxaw sampu jaaga. Ah, sañ koo xeex tungu ne xool ma xool man ma Siteu bu ànd ma bàyyi làmb xoolal taay bi ma yor ak moom taay bi mu yor ba xam man ñeme naa xeex moom wala ñeme maa xeex moom. Ah, moom na de. ma na naax yi fu ma ko dëbbee mooy ay mbokam ñàkk nañ làmb ji. moom nee na euh, góor du ko diriger te nee na yow ne ko yow yaa koy diriger na bu arbitre sifflé fu mu bëgg nga jaar foofu nga jaar. moom daa wax lu ko neex rek daa wax lu yi ma moom bërewu ko risque yi ma jël si combat moom jël ko billaahi wallaahi jël ko moom bu ma ne diriger. ma xam ne man li may woote si làmb amul man adversaire ma bëri maa leen diriger ñëpp maa leen di jaarloo fi ma bëgg ñu jaar fa maa leen di daan moom moom adversaire yi ma am amul leen moom bu mu bu mu tëkkale boppam ak man ñi muy ñi muy fooyee di leen diriger di naa leen jaar ni ñuy jaar ne ak man bokkuñu bokkuñu barke yàlla bokkuñu. lan moo tax nga ne bokkoo leen tamit. man damaa xamante ni risque moo nangoo jël ci bëre moom mënu koo jël xamu ko sax xamu ko dama ko dàq bëre téeméeri junni yoon le deux nag lay comprendre job de mooy kan. day xeex ak yow ba pare am na nu muy demee sax kaaw lay def bala moo bëri ak yow. kan lay kaaw man <laughs> man dama ko daax a xeex aller ak retour daax ko bëri ak ale ak gën ko jot ëpp ko doole kon moom mënumaa jaaraloo fenn si biir làmb man lay neex mën na ko jaaral nii mu jaar nii te fu ma ko jaaraloo dina ma topp. Ah, bu la déwee bu la déwee c'était bu ànd fu mën na ko jaaral fii foofu lay jaar bu soobee yàlla. moom nee na la awul fi nga fi nga. déggoo ma de c'était bu ko mu daanu waxuma la bëri de bu taxawee dëggal boppam laa xam ma kaaw sa làmb ji lu leer laa lay wax te fu leer laa ko teg. moom mu ne ah, bu andi tungu ne la la may kaawee koo xam ne conul sama kanam nga damay kaaw nan la eh? moom bu ma bëggee doon day tëb kon man su ma kaawoo man bu ma ñëwee waa Yambal dañ maa war a gas suul ma si de bu andi mënu ma kaaw mënu ma dóor sax ku ma dal. am luñ la dee. li ma mën sama jom-jom sama jom ak sama fula ak sama fayda sama entraînement man mën na ma may lu na si làmb mun na ma may lu na si làmb boo yi fi taxaw di tëdd yëpp maa mën te bala ñoo ko comprendre le deux bi sooba yàlla yonente bi bu Diop 2 ñëwee ànd ak waa yëmbal la ñuy xam Diop 2 moom am làmb ji guddi yi ñu toll. su bëre. su bëree ma daan ko maa ko dàq bëre. billaay wallaay maa ko dàq bëre téeméeri junni yoon. Fatma Diaye samay combat yi passé yëpp ah reporté nga ko gis nga baat ak tontu lay doon sax yàgg. ah mais kii ku raw noonu mun naa ko def xanaa mu daw mais bu lay doon du yàgg sax ñoom tonnerre ñu koy entraîné de. yow man ñoom sungulee may entraîné ñoom général Malika ñoom armée xam nga waa yëmbal mare ay ñoom Sa Thiès yëmbal gi ñëpp ñëpp yëmbal amul benn mbër bu sudul jàpp mbër yëpp dañ ciy jàpp kon man moom ku ko neex na ko entraîné man waa yëmbal laa am ñoom laay ndamoo ñoom laay ñoom laay tiitaroo moom moo ci ëpp problème ndax man damay attaqué koñe bu gañe bu soobee yàlla boo ci ëpp problème fukki jinoo ci làmb amul lenn fu muy jaar ba du ba fu ma ko jàpp du jël moom amul sax makaama boobu noonu xaa mu ñaata seconde nga ko may. armée de bu armée ne prix amul seconde maa ngi kawam fu mu ne naa ko fekk bu neexee yàlla. soo doon ñun ñaar bu ñu nee daje. xam nga dañ ko koo yeb góor bala nga koo yeb nga ñam ko. dina ñamante mun a ñàkk sax te lu te olof lu mun a ñàkk faaw mu am. Ah. armée de faaw ñu ñam kii Siteu bu ànd faaw ñu ñamante ma ak moom bu neexee yàlla. Mm-hmm. bu ñu nee rëngum daje. parce que yàlla xaw ma dina génn xaw ma du génnaat waaye bu génnaatee dina jël beneen yoon bu dul bu dul jéem a man du ko sax def ngeen nekk ay xale war a ubbi saison bi le de octobre ñu gis nga combat Fallou Ndiaye bi làmb xale la ñëpp ñu fa nekk ñëpp ay espoir lañ drapeau bi mu nekk le grand ménager muy Matar Ndiaye ci côté mobilisation bi lan ngay waaw côté mobilisation bi xanaa di si ci suñu grand zungule xam nga moom moo yor wàllu mobilisation bi lépp xam nga moom côté boobu moom du si am benn problème xanaa di woo autorité yëmbal yëpp suñu monsieur le maire Babacar Ndaw xam nga grand Tafa Morena xam nga Modou Modou yëpp waa Tenerife Modou Modou yu nekk xam ñëpp ñu ñëw jàpp si làmb ji xam nga grand pafal menuisier yi ñu ñëw jàpp si mobilisation bi baax a baax baax ay grand moomu naar xam nga yëmbal gi yëpp baaw ñu kenn képp koo xamante ne rek yaa ngi bëgg Diop 2 rek ñu ngi lay woo si combat bi nga ñëw jàpp si bu baax a baax a baax a baax baax baax wala mobilisation bi nag moom yëmbal gi yëpp bëgg naa ñu génn xam jàppale seen doom seen xarit seen rakk xam mu dem jëli ndam bi incha allahu rabi su neexee yàlla drapeau bi mooy bëre nag Madaar Ndiaye sama ménageur bu neexee yàlla ak yonente bi drapeau bi maa jël ci ay loxoom incha allahu rabbi xam naa bu baax moo ma yor moo ma yor ma yor sama licence. moo yor moo ma yor moo tax mooy ñëw. moo tax may ñëw daan jël drapeau bi si loxoom sooba yàlla yonent bi. lan nga wax promoteur bi. grand la billaahi moom moo nekk seul promoteur boo xam day waxtaan ak mbër ba une heure du matin wala wala deux heures du matin xam nga loolu yombul. dalay lay tëgg kaf ak yow foo ak yow réew ak mel ni ku bokk ak yow ndey ak baay loolu yombul xam nga ñun mbër yi man ak sama morom sama morom noonu la koy ñëpp. mun naa ne dama ko généraliser ñëpp day waxtaan ak mbër yëpp di kaf ak mbër yëpp di foo ak loolu di ko ñaanal nag journée bii mu jëm la deux mu gis si boppam bu baax a baax ci baax ci naa Seydina Mouhamed yàlla am na ko mun na ko yàlla na ko borom bi def si da bu ànd si da bu ànd boo yoo nga say mbokk Iba Mar fa nga dëkk domicile laa lay fekk bu ma ñëwee boo yeexee doo dugg waaw yow man tàmm naa ñu dalal ma Iba Mar Iba Mar tàmm naa ñu dalal ma fa heure bi ma fa dalalee bu ma ñëwee dama leen dund business dem xam na ne bu baax a baax a baax a baax a baax waa Medina amul ku ma xamul Diop de foo ko laaj ñun la ñun la ñun la mu ngi ne moom moom may dalal nag nee naa ko midi bu ngaax a ngaaxaloo midi bu ma ñëwee gis a fermé laa def làmb ji booy wane teel a ñëw ak ay mbokam domicile laa koy fekk bu soobee yàlla dinaa ko duma dinaa ko daan voilà ñu ñu ngi lay jaajëfal nag bu baax a baax baax di sant ñëpp di gërëm ñëpp xam nga borom saal bi ñu koy gërëm bu baax a a baax ndax lii yombul xam mu nekk suñu waaye tamit day ñëw di jàpp si contact yooyu yëpp muy booy njaawo xam nga waa yëmbal benn baraak Malika Kër Massar sama booy may àndal ay musa Ndiakhana ay magu ma fa yaa zone bi xam nga maa ngi woo ñëpp si làmb ji waa Manko waa benn baraak waa Boyal xam nga waa télé bu xonk fi ma dëkk maa leen di woo baax a baax si làmb ji xam nga grand pafal munu séri làmb nag sa loxo la nekk géral yëpp di di siyaar grand zungale baax a baax grand bi taxaw sama ginnaaw lépp moom la barki Alxuraan lépp loo nga xamante ne rek maa ngi koy def si làmb lépp moom moo ci dugal loxoom bu baax a baax saakees di ko féliciter si ndamam li mu jóge bi passé quoi mook caaru sam-sam di ko ñaanal mu jikko bu baax a baax a baax a baax a baax doomu kajoor bi xam nga seer naa yëmbal gi ñëpp woo naa ñëpp mafia 205 bi xam nga waa marin école de ligue école de ligue yëmbal marin suñu écrit ñëpp maa leen woo di leen woo ñu jàpp si affaire bu baax a baax a baax morfal morfal suñu kus day son su ñun grand boo jëm sama turandoo am na combat am na combat maa ngi koy ñaanal dem waa yëmbal sécurité bi xam nga ñëpp ay ñoom grand Mboy Gueye gaa yëpp ñu leen siyaar ay ñoom talaa ñëpp ñu leen siyaar bu baax a baax képp kuy bëgg Diop Dóor rek Diop Dóor mi ngi lay waa Mbedd Fass nag ñoom Issa Laye Fallou Diall gisee soxla naa leen bu baax a baax baax seen teewaay di waajal màggal gi nag di ñaan yàlla mu yóbbu ñu si jàmm indi ñu si jàmm ak salaam xam nga képp ko nga xamante ne rek chauffeur nga ñu ngi lay ñaan nga daw ndànk dal ndànk ndax sëñ Fallou moo ko waxoon ku daw ndànk di nga dal ndànk xam nga bàyyi xel si li ñuy dawal bu baax a baax di ñaan ñëpp dem si jàmm ñëpp ñëw si jàmm ci barke sëñ Fallou rendez-vous le 2 octobre incha allah Iba Mar Diop lu fa neex rek Diop de moo koy def courant du pile de courant du pile te bu la déwee ba ma ñëw ba dongali barki Alxuraan na nga xam ne Diop de du moromu xale loolu en suivre la kooku en suivre la saa gërëm ñëpp siyaar ñëpp mbërgale mbërgale yaay